nawe lañ lay nawe wara a kunna wara a kunna diine fonk sa diine te kay jëfe inshallah inshallah te kay jëfe nañ bennoo buñ tàqalikoo wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tafarraqu aha wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tafarraqu aha wasalu lan ci yéen yéen اعتدال اعتدال هل أنتن مستعدات؟ نعم نعم مستعدات هل أنتن مستعدات؟ نعم نعم مستعدات جيجل jigéen dafay yiw dafay yiw col gu jot aha col gu jot Ajá. Uh-huh. jool bu jot aha jool bu jot aha lañ lay nawe xam ni moo ñuy ibbil jataay bi bokk ci ndongay daara ji mi ngi tudd maam Ndiasse Dieng mooy ibbi jataay bi ak alquranul karim su noppee incha allah li tàmbalee 9 ba 10h incha allah dañuy jël première groupe ñooñu ñu jàngal ñi alquranul karim ci mbiri njàng moomu tamit dana duggaale ca biir xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dana dugg ci biir tamit benn discours boo xam ne nii wolof lay doon incha allah bu demee ba 11h jot incha allah ñu dugal ñaareelu groupe bi ñoom it alquranul karim dana amaale ca biir alquranul karim nga tamit ay ahadith ak ay taalif ak message yi nga xam ni xale yi dinañ ko jàllale incha allah waaye tamit dinañ rendre hommage ay nit ñoo xam ne nii ay kilifa lañu ñu baaxoon lool ci dëkk bi ñu nekk waaye rawatina ci daaray Cheikh Aboubacar Cissé ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala dolli seen yërmande ci jëf ju baax jën fi doon jëf yal na yàlla fay leen ko aljanna kooku mooy Serigne Maodo sekk Babacar yal na borom bi jéggal ko yërëm ko te may ko firdawsil aala ak Serigne Alpha Seck bu Baye Ousseynou Khoudia di waajuru sëriñ Modou mi toog sëriñ Mohamed sekk mi toog yal na yàlla yërëm ko jéggal ko may ko firdawsil aala ak suñu nijaay Serigne Adama Seck moom nga xam ni dëkkaale daara ji la woon waaye saabu. conférence bi Moussa na am këram dafa daan def ay bernde di teral gan yi ak njabootam gu bari tamit mokkale ci daara ji ba ak njabootam ba tey ñu ngi ci biir daara ji yàlla na borom bi subhaana taala yërëm leen ñoom ñëpp jéggal leen may leen firdawsi laala bu ñu noppee ci loolu nag incha allah 11h ba 11h30 ci la ñuy dalal nag jàmbaar yi nga xam ni wattu nañ alquranul karim fii ci daara yi Cheikh Aboubacar Cissé waaye dina leen gunge. seeni nawle yi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom daara ji ci ay anasuite pour bégal parents yi nga xam ne rot nañ ci waaye bégal ñoom ñi nga xam ni wattu nañ teel alquranul karim waaye ak ñi nga xam ni euh, ñi ngi ci daara ji yëpp suñu noppee ci loolu am na benn waxtaan boo xam ne nii ab fàttali lay doon boo xam ne dina dem ci biir daara ji dinañ dundu teb bi incha allah yaatal ko kii ànd ak ñoon ci waxtaan woowu oustaz Ahmed Mokhtar Diop di mudiru Mahad maam Ahmadou Ndak Seck fële ca cees suñu daanalee su daanalee kàddoom incha allah dañuy ñëw ci discours bi nga xam ne mooy discours annuel discours annuel boobu dana ànd ak kàddu directeur bi ak lenn ci ay taalif ak sant ak ay ngërëm yoo xam ne du jóge ci daara ji dellu ci ñi nga xam ne ñoo taxawu daara ji suñu noppee ci loolu li tàmbalee midi 45 euh, ba 13 foofu tamit dana fa amaat am njàng te mooy njàngu ñi nga xam ne ñoom mokkal alquranul karim suñu noppee ci loolu am na benn masraxiya buñ fay jàllale te mooy benn sketch théâtral boo xam ne nii am message lay jàllale boobaa loolu la ñuy jàllale incha allah suñu noppee ci loolu dañuy dem ci kàddu yi nga xam ni ñi rot ci jataay bi am nañ ko fi te kàddu gi ci jiitu mooy kàddu euh, boroom dëkk bi ki yàlla dox dogal dëkk bi ñu dénk ko te mooy chef de village suñu nijaay alxasan ñaan Seck bu noppee kàddoom ñi nga xam ne ñoo daa jànge ci daara ji ba yàlla dogal ñu génn ñooña am nañ benn rabita bu ñu tuddee madarisul quran bi canaba wala bokk rabitatul madarisul quran bi canaba wa ma xawlaha daara yi nga xam ni ñooy daara yi canaba yi ak li ko wër ca njiit la sëriñ dam xulle ñoom am nañ fi kàddu ak kàddu gi nga xam ni ñooy ressortissant yi nga xam ni ñoo jàng ci daara ji ñoom am nañ fi kaddu ak kaddu yi ñi nga xam ni ñooy parents d'élèves yi incha allah kaddu gi ciy mujj nag kaddu tëj lay doon ak gépp kàddu goo xam ne dab nañu rek dinañ ko jàllale incha allah kon programme bi nii lañu bëggee mu tëdd ni incha allah première ndongo Oustaz Bokar moom la ñuy jox mu ibbi jataay bi mooy maam Ndiassé Dieng moo ñuy ibbil jataay bi ak alquranil karim maam Ndiassé bismillah faddal mashkuran moom moom moom ngay jàngee ci rajo bi وأن الذي كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى حتى ba ci kër gi nuyu sëriñ Andala Cissé euh, njabootam ñëw nañ sëriñ Xuseynu ñëw na ak sëriñ euh, alxaaji Khalifa Cissé ak sëriñ Amari Mohamed Cissé ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di wàcc ci daara ji nuyu sëriñ daara ak ñi mu bokkal liggéey bi macha allah ñoom sëriñ Pape Diagne sëriñ Omar Babacar waaye wàcc ba ci bërëb bi it nuyu Serigne Mohamed Seck Almadina Cheikh Ibrahima Fall ak commission bi nga xamee ni ñoo ŋànk pédagogique bi ak communication jaxate ma nga ca ak ñi mu àndal ñëpp organisation Mamadou Mouroox ñëpp rek ñaan yàlla subhaanahu wa ñu tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ci alhamdulilahi rabbil alamin bu ko defee liggéey bi tey ci commission pédagogique bi ñu ngi ko dénk Serigne Mohamed si Seck Almadina moom mooy jiite liggéey bi ñun ñu topp ci ginnaawam incha allah taala bu ko defee moom la ñuy bàyyi mu euh, door ak ndongo yi comme noonu ñu ko waxee rek alxuraan li mu laaj mooy dal teey déglu ndax texe ca la nekk alquran bu xasee ba jóg kàddu geneen mënta jóg ndax kàddu suñ borom subhaanahu wa dafa fare kaw kàddu yépp bu ko defee li ñuy ñaan ñëpp rek mooy suñu dooree liggéey bi di woo ndongo bi njëkk ba ndongo bi mujj ñëpp xerawlu ca tekkeerlu ndax kooku fa la yiw wa nekk bu ko defee di gërëm média yi fi ñëw yëpp incha allah xam naa danañ dikkaat ci loolu. ak kilifteef nag du lu ñuy jël lu ñuy joxe la. kàddu yi mënuñu ko bañ a yëkkati ndax taranga ju mel nii su la ko yàlla defalee ay doomu aadama jóge fu nekk ngir yàlla loola lu kàddu yu néew néew ni leen jaajëf war na ci ah, xam nañu programme bi nu mu demee waaye lu war lu nekk danga koy jiital lu ca topp topp ca li war mooy taranga ju mel ni yàlla defal ñu ko defu ko ci ak aw askan def ko ci famille am ku nekk ca ba di seen kilifa lu mu gàtt gàtt ay wax feeñal ak cantam ak ñaanam ak gërëmam ci ñi ko defal jekk na jaadu na du ak bari wax du xam ñàkk xam loo war a wax Baye Ndol na mi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wan sant waajur yi ko meññi di ñaan yàlla yàlla euh, seral seen tërluwaay nee mi ngi sant sunu bab alaaj taala Cissé mi nga xamante ni nii lu jën njaagate mooy njaag ñu ngi koy ñaanal yàlla moog Baye Thione Cissé ak Baye àndal sise Baye Mamour mi nga xamante ne ni moo yore woon daara ji mi ngi ñaan yàlla yàlla yeesal seen yërmande ci seen kaw nee na lii lépp ñooma ñun dañ fi nekk rek di complété waaye li waroon na nekk lépp nekkal nañ ko ba yàlla dogal lii tey ñun ñu fekkee ko nekk fi yàlla jiital ko ci kanamu njaboot gi yàlla na leen yàgg a jiite ah, télé nag euh, nit dina ko def ci ak manadi ak ñàkk ku la taxawu dina tax ne nit télé waaye ñàkk mën ngaa ñàkk manadi waaye am ku la taxawu sa télé du feeñ te loolu dal na bàyyi ànd la ndax mënul waaye ñi mu ñi mu yaakaar jox leen kàddoom lépp lu mu waroon a def wala bu war koo wax dinañ ko ko defal dinañ ko ko waxal kon loolu dug télé nekkatul téle nee na mi ngi sant yàlla bu baax di nuyu Baye Serigne Thiénaba di ko juutal ci nuyoo bi moom mi nga xamante ni mooy xalifa généralu Thiénaba di nuyu chef di village di nuyu ak njabootam ak imaam yi bàyyiwuñu kenn il faut ñu gàttal kàddu yi ndax programme bi moo demee noonu nee mi ngi nuyu sëriñ daara ak ñi koy jàppale ndax sëriñ daara su mënee lii ñi koy jàppale ñoo ko ñoo ko ñoo ko ci jàppale ndax benn loxo mënul dara waaye taxawaay rafet na rafetaay goo xamante ni moom wóor na ko ni sëñ daara lii mënulu ko boppam kon ñi ko ñi ko ci jàppale ba yàlla dogal lii tey war na leen a sant war na leen a gërëm mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal yàlla neena mi nga ñaanal yàlla ñi ñu jël seenu njaboot dénkoo daara ji li ngeen yaakaar ci daara ji ba tax ngeen indi fi seenu njaboot yàlla na yàlla defal leen ko nee na xolam sedd na guy ci taxawaay mi ngi leen di ñaanal yàlla mi ngi ñaanal yàlla équipe bi nga xamante ne ñoo ŋànk daara ji bàyyiwul kenn il ñu gàddal kàddu yi ndax jotaay bi moo demee noonu euh, euh, bureau bureau bi yore daara ji nee na mi ngi leen di sant waa Thiénaba mi ngi leen di sant gan ñi mi ngi leen di sant li ngeen ko defar rëy na ci moom lool waaye yàlla leen di bàyyeel ndax lii mbirum yàlla la te yàlla ku ko lebal mu fay la kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla lii yàlla nañ ko yàgg a teewe ngeen yàgg ko fekke xolam sedd na guy guy ci taxawaay ak organisation bi ak taraanga ñi nga xamante ni sunu borom defal nañu ko ñun ñëpp ñu defoon ko fi daaw defa ko fi daaw jéeg ren ñu fekke ko yàlla ñu ko yàgg a fekke أو تخفوه أو تخفوه فاستغفروه يحاسبكم به الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم شئتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا من الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون يرجون لقاءنا لولا لولا أنزل علينا الملائكة وكات وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام غلام ولم يمسسني ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا صدق الله العظيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي في هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki jullit dama leen indiloon benn xadis bi wax ci wargaru boroom kër ci njabootam yàlla subhaanahu wa taala wax ci suratu anfal ci aaya sabawa surun ni yaa ayuha alladina aamanu laa taxunu war rasula wa taxunu amaanatikum wa antum taalamuun وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أخرجه أحمد yàlla si mi ngi wax ci sóoratu anfaal ci aaya ñaar fukk ak juróom ñaar nee na yéen ñi gëm yàlla bu leen war yàlla bu leen war yenent bi bu leen war seeni dénkaan ci tayeef jële nañ ci abdullahi muy doomi Amr ibn al-As yàlla na ko yàlla gërëm moo baayam mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na digal leen seen doomi julli suñ amee juróom-ñaari at suñ demee ba am fukki at te nanguwuñoo julli nga door leen te nga tàqale seen tëdduwaay xadis bi ñaar rekk lañ ci mën a jàngee ak njaboot dañ koy teel a jàngal julli te di ko digal beneen bi ak njaboot gu góor ak njaboot gu jigéen dañ leen di tàqale ngir daw fitna wasalaamualeykum wa rahmatullah yal nañu yàlla may dégg ak toog leen samay mbokki jigéen déglu leen ma mu wax leen seen yóbbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه walladi xawsa laa yaxruju illa nakida kadalika nusarrifu l ayaati li qawmi yashkuruun mani jigéen warul juum àddina yay ki ko yor te waroo fàtte ki nga doon bu dee xam nga sa cër kan moo lay jox cër bi nga moom boo jàppee sa bopp ni xar kon jigéen bu bañ juum tënkul ci diine am yar sag yiwa lay def buur kon fexeel di muur say cër bul ragal ña lay reetaan xamal ni àddina du kër bis dina ñëw ñu gas la suul lañ lay seedeel dee ko sóor te way buy topp say sët bu mu doon gàcce jaare sa tur xamal ni yàlla la teral sa gal la digal la ngay muur say cër ngir sutural la ngal la bul wàcce sa bopp ku for nga ndax muri say cër jumte la sol yére sa ginnaaw ni fàng sóoraale woo ko wala sax dënd ba nekk sa biti faale woo ko sak bu gàttul xatulit yaraax na yi ci jigéenu jullit iska dagan na man yiwal ba dee bul ban ku ni la yaay cher sàmmal sa bopp ndaxkat jigéen sa seer mani ku fi fawee sa bopp ba jaratoo dara bula yàlla mayee boroom kërit doo dara mani ku fi fawee sa jaratoo dara bu la yàlla mayee boroom kërit doo ko jaral dara ab ndaw daa saxul te bis yemul ci tey te ku fi doon mag sa dimbay doon sa way xamal ni àddina kenn saxu fi dañu fee ñëw ngir liggéey kon fexe la jël ca waat yu baax ya di ko bay loo dund dund dee te say jëf lañu lay fay duniyaa ku fi sàggan laaxira doo fa am lay loo dund dund dee te say jëf lañu lay fay duniyaa ku fi sàggan laaxira doo fa am lay yéen samay mbokki jigéen seen yóbbale ngi noonu salaamu aleykum wa rahmatullah يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم دار كما أخرجك ربك من بيتك بالحق بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق الحق بعدما تبين بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس بأسنا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها من بعد أهلها نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين حسبك صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم ولما توجه تلقاء مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة وجد عليه أمة من الناس يسقون من مقتدون mbokk lii de ak yóbbal la bu jëm ci gépp kilifa moo xam ndombal tànk loo mën a yor moo xam da ngaa jiite am réew walla nga jiite am société walla mbooloo moo mën di jiite yóbbal li nag dafay dellu ci saxaaba bu ñaan Abubakar as-Siddiq radiyallahu moom mi nga xam ni ginnaaw bi Yonent bi sallallahu alayhi wa génne àdduna julli ñu bari jàq nañ ñi naan diine ji jeex na ñi naan kilifteef jeex na Abubakar As-Siddiq moo wuut yonent bi sallallahu alayhi wa ci diine ji ginnaaw bi nag dafa def discours bu rëy maanaam ak xutba xutba bi nag àdduna doodu ko fàtte waaye taarux li islaam doodu ko fàtte Abubakar mi ngi wax ak nit ñi leen ayyuhan naas fa inni qad wulliitu alaykum walastu bi xayrikum fa in axsantu fa ayinuuni wa in achattu fa qawimuuni alsidqu amaana walkadibu xiyaana waldacifu fiikum qawiyun cindi xatta axuda alxaqa la waldacifu fiikum qawiyun cindi xatta axuda alxaqa minhu inshaa allah laa yadacu qawmu aljihaada fi sabilillah illa darabahum allah bi zulm wala tashiu alfaxishata fi qawmin qattun illa ammahum allah bilbala atiicuuni ma ataatu allah wa rasulah fa ida asaytu allah wa rasulah fala taata li aleykum abubakar mi ngi wax mu ni eeyeen nit ñi maa jiital ci yéen waaye gënuma leen kon su ma rafetalee na ngeen ma dimbali waaye su ma defee safaan wa day na ngeen ma jubbanti waaye mu ne as siddiqu as siddiqu amaana mu ni dëggu moom mooy kóolute waaye ñàkk dëgg moom ak wor la mu ni ki ngeen jàpp ni moo gën a néew doole ci yéen jàpp leen ni moo ëpp doole ci man ba keroog may jël àqam di ko delloo waaye ki ngeen jàpp ni moo ëpp doole ci yéen jàpp leen ni mooy ki gën a néew doole ci man ba keroog mooy jël aaxam di ko delloo ñu ko yelloo incha allah mu ni aw nit du ñu bàyyi jihaad ci yoon yàlla mukk bu dul yàlla dafa wàccal balaa ci seen kaw waaye mu ni mbonte ñaawteef du tasaaroo aw xeet mukk lu yàlla dafa wàcce balaa ci seen kaw mu tëjee ko topp leen ma fekk yàlla genente bi waaye su ma toppul yàlla ak bi bu leen ma topp mbokk xutba bi li muy jàngale rëy na ci liñ ci mën a jël muy am njiit ñamu jiite gënu leen ndax am na ñu ko ëpp xam-xam am na ñu ko fa ëpp daraja waaye du it dafa leen a gën moo tax ñu jiital ko waaye am njiit day dëggu bu dëggoo rek ñi mu jiite dañ koy wóolu waaye ñàkk dëggu moom ak war lay jur waaye mu ni ak njiit da sóoraale ku néew doole waaye doo topp ku ëpp doole mukk waaye aw njiit ci liñ koy topp muy mi ngi topp yàlla su toppul yàlla ak yonent bi kenn amatul droit topp ko hada wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala wa sahbihi wa sallam alaykum wa rahmatullah qala allahu taala wa awfu bil innal ahda kaana mas'uula Harr ibn Murra qaala li Mu'aawiya yaa Mu'aawiyata inni sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس أخرجه أحمد يلا وحنا آية فنور أنين ci sooru Isra na ngeen matal kóllëre ndax ëllëg dawa koy laaj jële nañ ci Arr ibnu Murra mu ni Muawiya yow Muawiya dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ni amul benn imaam wala kilifa guy tëj buntam ngir daw borom aajo yeeg borom soxla yeeg ñàkk ñi lu dul yàlla tëj na bunti asamaan wali si aajoom ak soxlaam ak ñàkkam ba Muawiya déggee lool ca la yabal ab waay ngir mu koy saytul aajo yi nit ñi Ahmad moo xadis boobu xadis bi liñ ciy jàngee mooy benn kilifa warul sori ak njabootam war na leen jiga xam seeni soxla taxaw sa kom na mu waree assalaamu aleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال What? asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi maa leen bëggoon a indil xadis buy wax ci wargaru kenn ku ne kilifa gi ak ñu mu yilif qaala taala fi surati l isra aaya sitta wa salaasuun inna alsamaa walbasara walfuaada kullu ulaika kaana anhu masuula jël an abdillahi ibnu omar radiallahu anhuma annahu samia rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul kullukum raacin wa mas'uulun an raciyatihi fal imaamu raacin wa huwa mas'uulun an raciyatihi warrajulu fi ahlihi raacin wa huwa mas'uulun an raciyatihi walmaratu fi bayti zawjiha raaciyatun wa hiya masuulatun an raciyatiha walxaadimu fi maali saydihi raacin wa huwa masuulun an raciyatihi qaal fa samicat haulaai min rasulillahi sala allahu alayhi wa sallam wa axsibu nnabi sala allahu alayhi wa sallam qaal walrajulu fi maali abiihi raacin wa huwa masuulun an raciyatihi rawaahu buxaari wa muslim yàlla mi ngi wax suuratul israil aaya fanweer ak juróom benn mu wax ni yëg leen ni ak dégg akub gis akub xol benn bu ci nekk dinañ ko laaj ëllëg yowmal xiyaam jële nañ ci abdillahi mi doomu omar yal leen yàlla gërëm ñoom ñaar mu wax ni dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ni kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la ëllëg yowmal xiyaam danañ ko laaj lum doon sàmm ilimaan bi maanaam njiit li sàmm la ëllëg yowmal xiyaam danañ ko laaj nu sàmmewoon kilifa gi sàmm la si biiri njabootam ëllëg yowmal xiyaam danañ ko laaj nu leen sàmmee woon soxna si sàmm la ci biir néegu sëyam ëllëg yowmal xiyaam danañ ko laaj nu mu sàmmee surga bi sàmm la ci alalu sangam ëllëg yowmal xiyaam danañ ko laaj nu sàmme mu wax ni ba ma déggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax muy woo ñi ma foog di dina ci boole waa ji sàmm la ci alalu baayam ëllëg yowmal xiyaam danañ ko laaj nu mu doon sàmme xadis bi imaam buxaari ak muslim ñoo ko solo xalis bi buñ ko doon tënk mooy bépp kilifa bu mu manti doon ak ndombal tànk boo manti yor ak luñ la manti dénk ëllëg yowmal xiyaam danañ la laaj noo ko sàmme woon wasalaamu aleykum wa rahmatullah yal nañu yàlla may dégg ak toog asalaamu aleykum wa rahmatullah good morning everybody we are very honored to receive again in our last day رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشرة وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود Amr bin Shu'aib reported on his father's authority that his grandfather, may Allah be pleased with him, said, Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, Command your children to perform salat, prayer, when they are seven years old, and beat them for not offering it when they are ten, and do not let boys and girls sleep together. Abu Dawud. Thank you for your attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم وماتوا وهم كفار أولئك أولئك عليهم أولئك عليهم صلوات إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم مر أولئك عليهم صلوات أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله العظيم Ladies and gentlemen, welcome to our 12th Haflaz Day. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال yaa gulaam inni uallimuka kalimaatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tijahaka iza sa'alta fas'alillaha wa iza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtamau ala an yadurruka bi cheyin lan yadurruka bi cheyin illa bi cheyin qad katabahu llahu alayk rufiat al aqlaamu wa jaffat suhuf rawahu tirmisi wa qaala hadisun hasanun sahih Ibn Abbas may Allah be pleased with them said one day I was reading behind the prophet peace and blessings be upon him when he said, Oh boy, I will instruct you in some matters. Be watchful of Allah, commandments of Allah. He will preserve you. Safeguard his right. He will be ever with you if you beg. Beg of him alone. And if you need assistance, supplicate to Allah alone for help. And remember, that if all the people gather to benefit you, they will not be able to benefit you except that which Allah had foreordained for you. And if all of them gather to do harm to you, they will not be able to afflict you with anything other than that which Allah had predestined against you. The pains had been lifted and the ink had dried up. At-Tirmidhi, who categorized it, it as Hadith Hassan Sahih, may Allah brings us in the right way against you. قالوا ربنا غلبت علينا سقوتنا وكنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثت لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم أولم يرى